Euh, njiit buñ ko ñaanee dina xool ci liñ ko ñaan lim ci mën a maye mu maye ko ci te liñ ko ñaan am na lu mu ci mën a maye wax na ma jox na ma garantie ne ma incha allahu rabi dina euh, fexe ba ñi nga xam ne ñoom la ñu waroon condamné am ñu ñi ñu waroon exécuté yëpp dootuñu leen exécuté ti donc ma di ci sant. bu loolu weesoo mbokk yi ñu daal di ñëw nag uh, ci uh, mbunti ministre bi nga xam ne moo amee uh, li nga xam ne moom la ñoo di wàllum énergie ñoom itamit si bés bu ay bi ñu génn nii dañ doon am nag ndaje bu mag ngir nag askan gi ci li nga xam ne mooy suñ waruwaay yi suñ li nga xam ne moo ñu wóor àla yeeg yooyu noonu ndax naka lañoo def ba yaxanal ko lii nag ñu ngi doon seeti itamit li nga xam ne moom la ñoo jëfandoo si suñ kër yi di ko toogee muy furno yii ni ak mata yi ak këriñ yii ñu dal di nag déglu xadijatu dialo mi nga xam ne moo fa teewaloon jamono ji mbootaay bi li ko waral mooy am ne sils ñoom ñooy mbootaay bi nga xam ne ñooy taxawu member countries si Africa Mauritanie si la bokk Sénégal Gambia to name a nga xam ne affaire yi um, naka drought bi daf leen sonal so ñooñu dajee ñu bi mooy maanaam ñàkk ndox mi waaw ñàkk taw bu doyul mm-hmm. so léegi member countries yi ñu am programme bu ñu leen defal mooy PREDAS so foofu lañ daan naka la tuddaate pour dimbale réew yi waaye PREDAS wan mooy phase one biñ def min jëkkat taxawal boobu noonu danga gis ne liggéey biñ si def daal doyu toon so liggéey biñ def mooy ne dañ defoon ay training def sauvé mooy gestu ay mbiri àllabeek mbiri daal loo xam ne dafa luy tàkka la daal mhm. moo xam mbiri courant la moo xam matta yi ñooy taal ak ak ak ak ak ak kërin yi yooyu lañ gestu boobu lañ def mhm. ñu bind ko ci document moo fa document boobu noonu waaye bi loolu jeexee programme bi juróomi at la jël bi mu jeexee ñu gis ne programme bi daal liñ war a def yëpp liggéey bi ñu war a def ci wàllum yi tàkka am am am defuñ liñ ci liggéey biñ ci war a def moo waral ñu ne dañoo indiwaat léegi nga gis ne réew yi nga xam ne ñoo nekk si mbootaay bii nii ñu ñaan SEALS pour ñu ñu ñu ñu yokkaat programme bi daal léegi SEALS ñëw indi ne dinañ amaat programme moom la ñu ooyee PREDAS 2 waaye ci diggante PREDAS 1 ak 2 am na one year gap mhm. léegi at benn at boo xam ne dara du ci am yee ñu gis ne daal pour bàyyi ba wa benn at lu ma defuñ dara ñu ne xaaral ñu indi phase boo xam ne mooy moom la ñu ooye interim phase bi nga xam ne lifin biñ defar noonu mooy eh, bi ñu def noonu def ko ci eh, ci téere bi mm-hmm. waaw téere boobu noonu lañ jël pour mun a wax ak nit ñi yëgal nit ñi ñi nga xam ne ñoo jëfoo liy tàkka si réew mi moo xam mbiri courant la moo xam matta ak lu munti doon loo xam ne luy tàkka la pour ñu wax leen naka la mais spécial suñ suñ àll bi nga xam ne moom lañoo gën a jëfoo ba ko soo gisee lépp loo xam ne ñu koy use si luy tàkka lañ dee gën a yuur si Gambia bi. mu mel ni ndox mi doyul gën a jox waaw ndox mi doyul ba àll mi ñu ngi koy gor rek. waaw ñu ngee gor àll mi mm. léegi àll mi soo seetee ni meloon ak léegi. Mm. amiin eh, di nga gis ne. moo tax tey jotaay bi xam naa gorkat yi àll yi sax yéen ñoo ñëpp a fi ñoom ñëpp a fi mm. te ba pare am na ñoo moom jotaay boo xam ñoom jotaay boo xam ne. wax na ñoo moom ñu wax ñu seen problème yi ñu ne ñu wax leen programme bi la na ko waral daal li tax ñu sosal ko. so looloo tax ñu ñëw fii pour mun a ee nit ñi ci situation problème bi. bi suñ àll bi di fees ak naka la ñoo def ba mun a fanxa problème yooyu noonu. Eh, programme bi gis naa tey nga fee laafatoo pour ñu déggul olof léegi nag bugga naa nag mu gën a yaatu eh, ñu indi ko ci programme jamono ji pour ñu ñett mi di seetante la ba waxtu boobu xam la na xewoon fii tey. projet boo xam ne nii liy jubluwaay bi moo di pour ñu seet pexe boo xam ne nii dinañ mun a yaxanal. lépp loo xam ne nii nit ñi dinañ ko soxla ci ay jumtuwaay ñoo taalee moo xam toggee ko moo xam muy mata wala këriñ ak yi ñu mel ci suñu kër yi ak dëkkuwaay yi pour ñu aar li nga xam ne nii moo ñu bi di environnement bi ak àll bi te lii dafa yaxanal koom-koom ngir àll bi li ñu ci yàlla jox bari na trop te kon dafa laaj doomu aadama yaxanal ko sakkanal ko lu ko mooy di goor àll bi di yàq àll bi yi fa dëkka di ay rab yoo xam ne nii ay mbindaafoon ak yeneen yoo xam ne nii mu ngi eh, nekk di dund ci gàncax gi nekk ci biir gàncax gi itam ci biir àll bi ak li ñuy wur doomu aadama daf koo soxla waaye soxla bi itam soo ko ëppalee mun na laa lor mun nga koo jëfoo waaye na am fu moo em waaye nag foog gannaaw soxla nga ko itam foog nga am beneen pexe boo xam ne nii moom nga cee dugal pour pexe boobu leen dina la dimbale ëllëg ak sibit di nga mun a toppatoo sa soxla li nga soxla pour dundee ko te itam du lor gàncax gi du lor àll bi. mu mel rek si gàttal xanaa waxtaan bi dina dem ba nga xam ne kii togg ku doon toggee benn poti këriñ sax di ngeen ko jox pexe boo xam ne xëy na gànnaaw gànnaawaali pot laa use. xëy waaw waaw xëy na sax du jëfoo këriñ. Mm-hmm. mun naa am beneen pexe boo xam ne nii sax mun naa toogee te du toggee këriñ te du toogee mata te cinam bi dara du ci yàqu dafa mel ni rek mata ak kiriñ la doon toogee te itam du jëfoo courant lii lii lii mooy pexe bi ba rek mbokk yi ñu daal di ñëw nag eh, ci fànn bi ni nga xam ne nag eh, lii lu am solo lay tamit eh, muy aada ak cosaan la nag ndax am na ab garab bu mag bu nekkoon ci yooni Banjul bi fii wax nañ ne nag garab bi am na lu mut téeméeri at mu ngi samp fii waaye nag dañoo jékki rek ñu gis nag mu daanu mu waral nag ki nga xam ne mooy Alaaji Mbay Caw nga xam ne historien la moom itamit ku xam démbala la bokk ak askan gi tey mu wax ñu moom itamit ci garab boobu noon nga xam ne moo nekkoon foofu ci Banjul Banjul te ñu ne garab yi cosaan la. Banjul li fi dëkkoon dañ jaxasoo woon naam bennoo bi amoon na ndig cër ak yar waaw munoon naa wax ne ci su ma buggee use de right word ci da dama ne cosmopolitan li fi la woon waaw parce que nit ñi mhm. ku ñëw rek ci nga waaye nag mhm. ah normes ak values yi ñun dañ ñun ñi fi dëkk ñoo ko interprète ah. parce que ku dëkk fekk ñu ca lañ dëkk ca ngaa bokk waaw boo demee Italie nag fekk romanti yi watatu da ngaa watatu comme ñoom <laughs> dañ amoon benn ci suñu biir parce que dañ ñu ko yaree dañ ñu yaree woon kenn ñàkkut ba tax nga doyadi waaye kenn amut ba tax nga réewit saw dañ daan wane tam ñu ne garab bi baax na si dañ demoon ba nga xam ne ñaari garab ñaari dëkk yu bokka sax saxandoor ci benn barab. dëkk yooyu boo buñ la yónnee waan da ngaa dem deqi ko ci suuf. Ah. waaye bu fekkee dëkk da ngay teggi ñaari dëkk yooyu mu xar. Ah. bés boobu doo yóbbu dara. Ah. waaye boo demee nag deqi ko mu génn. moom ngaa yóbbu nag suñ maam yi daan ko ooyee noob. waaw ñun ñi ñu tuuti ñi la yaroo ci maam ba ñu ngi des tuuti boog ci xam-xam boobu. Mm. di jagal ay noob. bu yàggul ni sax jagalal naa ko suma benn xarit ci doomam. lu am solo sant eh, benn tënki garab la boo xam ne ci ñun suñu wàlla nañ ko seetaat bu baax benn tënki du sax fu dara newul dara fu dara di dara rek laa sax benn tënki garab la boo xam ne mag yi jox nañ ko cër torop te gëm nañ ne itamit du kese. du kese am na yuñ gëmut waaye rab moom jinne yi loolu gëm nañ ko ndax ci biir alxuraan tax ci ci islaam am na saaram. ku loo yee li anoo sama nafar ne a jinni loolu yëpp. wone na ne jinne am na nam mel nag noonu borom xam-xam a ko xam ak ñi yàlla baaxee yooyu waaye ñun gëm nañ ne garab gile ci ñun du yàlla de jaamu wuñ ca yàlla yi déedéet waaye dafa am luñ ci gëmoon waaw dafa am mbaax mu ca newoon mu àndaloon di gëm ne mun nañ koo noon mun nañ mun nañ koo oniwaale mu bokk ci li li li nga xam ne moo ñu tàggat du ci du ci uddala ba nga mucc ayib de waaye dina def si yow xel ba nga xam li nga war a doon ak li nga war a mel ba nga nangu ne ci laa xam nga ki nangu ne ci la bàyyi ma ne naa mun na ngeen bàyyi seen xel mag ñu yàlla ñu leen yàlla fayal mu ne dafa am loo xam ne ci boppi nawet buy xew nañ ci dee bàyyi xel garab gu mag bu banqaas yi damay daanu mu ne ñu dee rafetlu nañ ci ne day ndaw dina bari ma ne ha ah, mu ne ma waaw mm-hmm. mu ne rafetlu nañ it ne bu fekkee dama dami banqaas yooyu di rot noonu ragati dee yi ndaw garab yu mag yi deqeeku tamit ci jamono boppi nawet loolu dina ta wone na ci ñun maanaam gëm nañ ne ci suñ xam-xam eh, dee mag dina bari mbokkaay bu loolu weesoo rek ñu daal di ñëw nag uh, ci fànna bu am solo bi nga xam ne mooy suma xool fañ leen dee jàngale seen leetari xol yi waaye nag lata ñoo jàll ak Ramatulaay Jaalo dañoo daal di jël nag opportunité bi jaale ko yaayam nga xam ne moo génn àdduna si samdi bi ñu génn ni ñu ko ñaanal nag yàlla xara ko aajana ñu déglu nag leetar bii ne suma xool nag tey uh, muy leetar boo xam ne mu jóge ko si benn xale bu jigéen boo xam ne yoon na am ay doom Ah, sëy boobu noonu tas mu ñëw sëyaat ak beneen góor